لي اليقين والنيرفان والسوخ والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والإعانة والسعادة وأجل أن أمة خير المرسلين وفرجا جميعهم جميعا يا علي وروى بارك معافي كلهم والعجيب والتوب واغفر لهم ويلي يا ربي من عاصم النباء إنك عاصم ونصيبا في التمام وجلني يا ربي من عاصم النباء إنك عاصم ونصيبا في التمام وجل جميع ركاتي لك وسكناتي تاحة بفضلك وجل حياتي ومماتي في سنن والفرد والمندوب سرا والا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 mbokk yi nga xam ne ñoo baaxoo eh, top seen rajo bi de Assalaamy FM quatre-vingt-dix-neuf ci Touba rond-point bu Ndaw ci studio Soxna Anta Ndiaye mbake waaye mu lëkkaloo ak seen seen télévision bii di Assalaamy TV ngeen man di ko am fépp ci réew mi ak bitim réew seen bokk taalibe Fallou Galass nekk ci micro bi jàkkaarloo ak Serigne Abibou Thiam ci wàllu machine bi ñoo àndandoo ak moom nag di leen nuyu nuyoob lislaam di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu ñaan sunu borom gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram dolli ko kàttanuk yaram ak kàttanuk xel ba mbooleem luy ay mébétam suñ borom bàyyi ko fi ba mu matale ko te ñu ànd koog moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di nuyu ak siyaare jëmm ji nga xam ne moo waral jataay bi di sëriñ Abo Mohamed di xalifatu cheikh Mouhamadul Mamoun Mbakke waaye ak soxna Maymunatu Mbakke Kubra mu Sëriñ Tuubaa Xaadim ñu di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa mu may ko fan wu gudd lool waa ànd ak wér yaram ba mbooleem luy ay naalam ak ay mébétam ci liggéeyal ko borom daaru salaam waaye liggéeyal ko soxna may Maymuna suñu borom bàyyi ko fi bi ba mu matale lépp te ñu ànd ak moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di nuyu sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdul Xaadir ak mbooleem njabootu Cheikh Abdul Xaadir gépp di nuyu Cheikh Mahamadul Moustapha ba agsi ci Cheikh Mouhamadul Bachir waaye di beral ab nuyoo ak ziar soxna Mominatu Mbàkke bintu Cheikh Abdul Xaadir moom ak mbooleem njabootu Cheikh Abdul Xaadir gu jigéen gi baax si ci soxna Mbeen Ngaabu bàyyiwuñ ci kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di nuyu njabootu soxna Xadi gi di ñaan sun borom subhaanahu wa taala ñoom ñëpp yàlla boole leen fan wu gudd wu ànd ak wér di nuyu njabootu sëriñ Moustapha May ak sëriñ Cheikh May bàyyiwuñ ci kenn ci njaboot gi di nuyu mbooleem koo xam ne sun boroom dogal na jataay bii nga am ci wàccuwaay ñoo ngi la koy jox tey ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu gàttanuñu ak ndimbalam di nuyu njabootuk sëriñ Mor may yëpp waaye di nuyu nag sëriñ Cheikh Abdou ak mboolem ay rakkam di njabootuk eh, sëriñ Amdi Moustapha nuyu boobu nag ñu teg ko ci loxol sëriñ Jili mu sëriñ Abo mu jàllaleen ñu ko ci mboolem mbokk yëpp ak nag fédération bi lëkkale sati soxna Maymuna yi ak fuñ ñu mën ne ci biir réew mi ak bitim réew noo leen di ziar bokk yi ñu fas yéene ñëw ak ci jataay boo xam ne jataayu fàttaliku la waaye jataayu nafaraat la jikkoy saalihaat mu'minaat muslimaat muhsinaat di taalibab sëriñ tubaa xaadimu rasuul di doomam ju ko liggéeyal di boroom ngërëmul yàlla lu réy lool kooku nag moo di soxna Maymunatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim ñu gën ko miin ci soxna Maymuna Kubra ñu daal di fas yéene ànd ak waroon ko seq ak sëriñ Mamballa Gueye xam naa mi ngi ñëw ci kanam def ko nag ci ndigalul sëriñ Abo Mohamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun ak mbooleem njabootu soxna Maymuna gépp mbokk yi xam ngeen ne juróom-ñetti fan ci weeru kori wujot danañ fàttaliku nitu yàlla kooku di soxna may Maymuna moom Serigne Touba Xaadim Rasoul di ko fàttalikoo ci këram gi nga xam ne moo nekk ci mubaaraku mubaarakul ibtidaa yi te ñi gën koo meen ci aynu rahmati juróom-ñetteelu fan ci weeru kor yi soxna Maymuna mi ñu war a fàttaliku nag xam naa dama ciy jaar jàll waaye looy fàttali te nit ñi fàtte wuñ ko xanaa xale yi sogo toll ci gëstu ak xam. ñu mën leen a wax rek FM 99.0 Touba. Maymuna soxna Maymunatu doomi sëriñ Touba Xaadimu Rasul la ak soxna Aminta Bousso mu bokk ak Cheikh Abdoul Khadir ak soxna Xadi Mbàkke way juru góor ak way juru jigéen sëriñ tuba jërut del siwaat doomi sëñ Mbàkke Mor Anta ak soxna jaaratullahi Mariama Buso soxna Aminta Buso mi meññ Cheikh di doomi sëriñ Busoobe mi bokk ak soxna jaara ndey ak baay kon soxna Maymuna da dangay gis ne Sëriñ tubaa mooy baayam di nijaayam lu Sëriñ tubaa di doon rek moom la soxna may Maymunay doon ci deret ak ci meen bu Sëriñ Tuubaa doon lakk day làkk lakk wu Sëriñ Tuubaa mënoon a lakk rek moom la soxna Maymunay dégg kon mooy dereeti sëñ Touba di meenum sëriñ Touba mënoon nañ ko topp mu gën a yaatu waaye loolu doy na ci càllala gu sell gu rafet suñ borom dogalit waajuram bokk ci ñu yàlla dogal ñu nekkoon Ceyeen Jolof muy soxna Aminta Bousso kon mën nañoo ne la mag ña daj ca Ceyeen fa sëñ Touba doon waxe yoon wi lii tax nit man caa jariñu loola soxna moomi soxna Maymuna fekke na ko ndax ca Ceyeen Jolof la fa la gënee àdduna ginnaaw géej gi mu bokk ci taawi taawi ginnaaw géej gi taawi ginnaaw géej gi mook sëriñ Abdullahi moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bala may ñëw ci feeñ jamonoom ak li ci sëriñ Tuubaa wax ak lim ci bëgg lépp damay njëkk a ñëw ci soxna Aminta Bousso waajuram woowu mu doonoon koo xam ne biñ ko andee ci wanagu sëriñ Tuubaa bokk na ci la ko ay bokkam waxoon dañ ne woon sëñ ñoo ngi la ciy ñaan sa bopp ñoo ngi la ciy ñaan sa bopp te ñoom seen waajur dafa waxoon ne seen waajur dafa waxoon ne ñaan na borom bi subhaanahu wa ba yàlla may ko ko lan la ñaan yàlla ba yàlla may ko ko moom sëriñ bu soobe mooy balay samp kër yàlla daf koy warlul ci doom ju mu am góor ak jigéen garaatu wàlli yu lay judduwaale góor ak jigéen te sëñ bu soobee moomu mat naa dellusiwaat tuuti ndax daa doonoon koo xam ne ci xam-xam ci ragal yàlla ci sàmm maanaam neexu caa seen neexu caa seen ci ku koy dàq bokk ci ñi yàlla joxoon ab cër ci moom ba fuñ ko masaane ko ananga yàlla ne leen maa ngi nii sëriñ bu soobee musta jàkkaarloog boroomam mukk na ko ananga yàlla di ko tànqamlu saa yu masaane yàlla ananga rek yàlla nee na ko maa ngi nii danaa ci ñëw tuuti keroog bi ku ki di feeñ jamono ca Mbàkke Bawal soxna Aysatu walo mi waajuram daf ko woolu sëriñ bu soobee ñëw mu ne ko kaay dem wërali ma diggante Mariama ak Xadi ak Xujja ñetti jigéenam yooyu am na ci ko am gande comme ci man di doon nag boo demee joxal ma ko fasu naaru góor wi ngay war nee ko addiyee gan googu nga xam ne am na ko te seetal ma ko mu jaar ci buntu kër yooyu nga xam ne ñoo mag soxna jaara fekku fa gan mu ñëw nuyoo si mbàkke bi mu nuyoo ñu dégg doom mu laaj soxna si ñu ne ko mu ngi ci biir mu nuyoo ci buntu nee bi soxna si ne ko ah, jàll si yow de daa mel ne sun boroom moo la fi yabal mu ne ko lu xew mu ne ko gan defee ñëw biig mu ne ko gan gi de moo ma tax a jóg mu ne ko lu tax mu ne ko soxna si moo la jox naaru góor wii moo ma woo bi démb na ma kaay wërali ma ci sa buntu kër yi jigéen ñooñu ku ci am gan joxal ma ko naaru góor wii ne ko addiyee gan gee ca na ko na ko bàyyi xel kon soxna sawaalo ci boppam mi maami soxna Maymuna mii boroomub cër la li doon doon jigéen cër bu rëy waaye sëriñ bu soobee it di maamam boroomub cër la di cër bu rëy pour ñu xam rek fondation soxna Maymuna dana tax ñu xam cër bu mu am ci yàlla ñu xam ne jomb ko su amee ak farlo sëriñ bu soobee moomu mag ñi mas nañoo daje ci Mbàkke ñëw di ko wax nawet bu bu bu bu boo xam ne dafa aju dafa tawatut sëriñ bu soobee na leen mbaaral leen ma ci digg penc mi ñu mbaaral ko fi mbaarum ndon sëriñ bu soobee dugg ca mbaar ma di woo boroomam li ma lay wax na la toujours saa yu masaane yàlla ana nga yàlla na ko maa ngi nii mu jël xalimaam jël aw feggoom teg ci aw kayit di woo boroomam ci faatihatul kitaab bismillahi rahmaani rahim mu tàmbalee ko ci baawug bismillahi ga ne bi i bismillahi yaa badiihu nadduhuuka yaa xariibu yaa samiihu bi baa'i bismillahi yaa badiihu nadduhuuka yaa xariibu yaa samiihu kon yàlla rek lay waxal ci tur yi mu ko woo nag mu wone ne tur la woo xam ko jege waaye ku déggit li muy wax lay doon ci ngay dégg ne sëñ bu soobe mii métatu wax bi muy waxeek yàlla boo ko fobee comparé ko ak ni sëñ tubaay waxeek yàlla duñ soree bi baa'i bismillahi yaa badiihu nadhooka yaa xariibu yaa samiihu lu ci topp siin mu ne bi siinihi ci ci arafu siin woowu anzil mina sama ima gis nga baatub anzil mu wàcceel mina sama i ci asamaan maa o ndox moomu nga xam ne moom ci la ak dënnu yëngu ba ñi woon ci ëtt beeg penc mi ñëpp dañoo dawandoo te booba jant bi ñuy bi muy mbaarlu di dugg ci biir mbaar mi jant baa ngi ne fang fang ci kaw aw xiin aw niir sax amul sàkkantuma ak kii ñoom yëguñ ne mi ngi def mi ngi wax ak boroomam waaye dañoo dégg rek dug dug dug xam ne xamuñu fu mu ne waaye yëngu gi ak xitititi ndox mi ñoo ànd mel na yàlla da ko doon déglu taw bi taw ba jéggi dayo nag wal mi dugg ci kër yéeg néeg yi ñu xuus ci biir ndox mi dem fekk ko ci mbaarum ndon mi ñu ne ko ah xaw mu ñu da wax ak sa boroomam déedéet waaye ndox maa ngi bëgg a yàq dëkk bi mu ne moom de maa ngi ko doon woo ci fatihatul kitaab te àggalagu ma bismillahi rahmaani rahim rek laa defagun allahu akbar kooku ku ñu wax ne moo la meññ te nga jógee cër boo am ci yàlla kenn du ko weddi <coughs> ma ñëw nag ci soxna Aminta Bousso <coughs> soxna Aminta Bousso kon kooku ñooñu ñooy ay wajuram ñu andi ko ci loxo yi ku tedd ki Seexuna Ahmadul Xadim wax Sëriñ Tuubaa nag wax ju rëy ndax mooy dañ la cee ñaan sa bopp sëriñ bi xam ne moom boppam yombut te xaw a dee koy maye mu daal di ko yóbbu nag ci yoon wi koy taxa am am sëriñ tubaa yóbbu ko ci yeen jolof soxna Aminta Bousso boole fa liggéeyub jigéen boo xam ne soxna Bousso Njaay nettali na ma lenn li li jëlee naa ko ci sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadir mu ne soxna Aminta ko nettali lenn li jëlee naa ko ci sëñ Modou Rokhaya ndax nee na ma bu ma sëñ Modou Moustapha masaa yónni ci soxna Aminta Bousso laay jaar waaye soxna Aminta Bousso bi ko sëriñ Touba yóbboo Ceyeen Jolof dafa nekk liggéey boo xam ne benn liggéey bu ko féete kaw amut ma ñëw ci rek benn liggéey boo xam ne Serigne tubaa wax na ko ca wax joo xam ne mën nañoo gis ne soxna Mayak Sëñ Abdou Xaadir rek soxna Xaadir ñëpp lu ñu am foofe lañ ko jële rawatina nag soxna May ma nga xam ne bi wax ji daanoo ak bi mu feeñee jamono yàggut. soxna Aminta Bousso Serigne Touba daf ko jox booba soxna Maymuna la àndal waaye ñëwagut jamono Serigne Touba romb ko ne ko Maymuna moom euh, Aminta damay amu gan te bëgg nga defaral leen ab reer reer bi nag bala maa julli fajar laa ko soxla daa dugg ci biir yoon ne ko yónnee ca gàtt ba muy àndal jox ko soxna Aminta Bousso mbokk yi loolu jigéen ñi déglu émission bi rek laay jox ñu xool tey jii ku la joxoon waxtu waxtu waxtu timis ñu jox la pepp te machine wol amut machine soq amut ne nag damaa bëgg ab reer bala maa julli fajar jëlale naa machine wol ak machine soq ak laaloog ya ca aju yëpp waaye matt maag yooyu yëpp da koy bàyyi waale xel waaye loolu lépp faaw nga bàyyi xel ne rek yow mi togg cere daal te xam cere lépp lu cere laaj ci jamono jooju soxna bu Bousso war na ko waajalaale ca cere lay lay doon du ndapp ndiiru du kanan cere lay lay doon soxna Aminta daal di jël pepp ma sóob ci gënnam di ko soq ba ko soqee ba. soq ba soq mu foofu ko sabet ko ba mu ko sabetee ba noppi nag daal koy ràcc ci ab sërub dënkam tiim ko di ko upp ndax bëgg mu fend ba mu mën koo wol ba mu ko uppee ba mu fend ba mu xam ne mën naa dem ci gënn gi mu di ko wol bi mu koy wol nag ba ak wolam di bëgg a tees mbooye mu bari sàqi ci guddi gi fekk na defalu na ab gàttam ba xar gaalam teg am ñeexam ak ndawalam di ko togg ñëw nag ci ak walam nga xam ne daf ko boole di togg am ñeexam ak di defar cereem nga xam ne su mooñee ba tey rek day fekk ne am ñeexam noppi macha allah foofu ngelaw dikkee ko mu daal di sëgg ci gënn gi wàcce ay yëreem yëpp ba mu muur gëmm gi ba mu wër ko ne benn fepp suuf du tàbbi ci biir mooñ cere ji wal gi ngelaw li nag des ak diir ay ñaari minute ñett ci coonab ku soq ba ab soqam tees muy wal ci guddi fi mu sëgg noonu rek lu mel na ngëmmeen jaar ko fi ku tedd ki Seexuna Ahmadul Xadim romb ko na ko kii mu ne ko mën a aminte daal di jóg tudd yàlla jëlaat ak kuram bi ak cereem àggee mu andil ko Serigne Touba ci waxtu wi mu ñëw ci jàkka ji nga xam ne mi ngi waajal fajar si mu taajal ko cere ji ak ñeex mi sëriñ bi xool ko mu mel ni mu bëgg mu ne ko xàkka sa aminte de liy jaay ci kër gi yaa ngi koy waxaale moom jënd ko rek la bëggoon kon kon liy jaay soxna aminte Bousso amoon na njëgug waxaale ko jamono jooju nag ci la yàlla dogal soxna muna feeñ ci jamono ci Ceyeen Jolof Sëriñ tubaa doomam ju góor ak ju jigéen a yam soxna Maymuna moom mokkal na alxuraan waxit la am na xam-xam waxit la ab waykat la ku mën a way waxit la ku dégg arab tam rafet mbind loolu incha allah bu sëñ Balla agsee dana feeñ ci jataay bi xanaa dañ koy ubbil rek soxna Maymuna ci jamono jii soxna Aminta bu di waxaale ci li sëñ Touba yor ci la feeñ jamono te sëñ Touba foofu nag la waxoon sëñ Mourou Moustapha ak sëñ Fallou sëñ Mbacke Bousso sëñ Mbacke sëñ moo Roqee Bousso ak sëñ Massamba na leen kay ma laa leen xamal leen ne lii ma yor du luy maye luy jaay la doom du ci am jarbaat du ci am li ciy maye daal luy jaay la rakkit du ci am wax leen li ciy tax a am jamono jooju leen sëñ Tuubaa wax ne lii ma amee luy jaay la ci la wax soxna Aminata Mbuso na ko yow liy jaay nag yaa ngi koy waxaale yow ndax dégg na ma bu baax jamono ji sëñ Tuubaa waxee ne li ma yor luy jaay la ci la wax soxna Aminta Bousso na ko yow li fiy jaay yaa ngi koy waxaale jamono jooju bu koy waxaale ci la soxna may mun a gane àdduna allahu akbar kon ku rëy ab cër ku wëy juram fàggul mooy soxna may mun a ñu jaarale ko fi ñuy jaarale doomi soxna yépp ak fi doomi sëñ Tuubaa yi da jaar ci jàng alxuraan ba teel koo mokkal lool jàng xam-xam ci jamonoy xam-xam booba nga xam ne mag ña fi nekkoon di jàngale de jeexal ci fànni xam-xam yëpp soxna Maymuna jaar foofu ndax bi sëriñ Tuubaa di ñëw njaareem da ko àndaale fekk mu toll ci juróom benni at jàpp juróom ñaari at fekk na boobu mu dal alxuraan nag moom waaye mu àndaale ko njaareem bi ñu ñëwee ba yàlla dogal alliwaam teel a noppi sëriñ Tuubaa bi muy ñëw njaareem rek 1912 douze sept la newoon ca yéen ba douze 1912 bi mu ñëwee njaareem rek ci ci bis fan yu njëkk yi ci la sancal soxna Fat Dia ndax da koo àndaale boobu man fekk na mu doon magum jëmm toll ci ay ñaar fukki at ak nangam jàpp fanweer waaye da koo daal di sancal kër kër gi jàkkaarloo ak kër sëñ Touba mu ne ko nag tërbiye jigéen ñi rek la koy doyee ak jàngal leen tërbiye jigéen ñi rek la koy dee ndax boobu moom sëñ Tuubaa moo tërbiye soxna Faat Ja ba mokk mu indi ko nag njaareem muy tërbiye jigéen ñi ne ci loxoy sëñ Tuubaa ndax damay wax toujours ne sëñ mooy koo xam ne dañ fiy andi jigéen ngir muy wut ngërëmul yàlla sëñ Tuubaa xool ne alliwam àggugut mu boole kook doomam yóbbu ca daara ja ñu jàng alxuraan sëñ Tuubaa ku munta ku mënut alxuraan du dëkk ak yow moo tax képp koo xam ne dañu lay tudd di tudd sëñ Tuubaa dañ nga ak réer ci alxuraan la cay sa wërsëg jot nga ci waaye xam-xamit la nga ci war a xam ci sa fara faratee jëm lépp xam nga ko sëñ Tuubaa doo ànd akub jaahil doo ànd ak kuy làmbatu coocu nag la sëriñ bi jëlee soxna na teg ko ci loxol soxna Fatija bintu Cheikhuna Ahmadul Xadim di ab taawam kon mën nañ ne sëñ Tuubaa moo jébbal soxna May soxna Fatija mu di ab taalibeem di rakkam di doomi sëriñam soxna may nag mën naa wax rek ne nu sëriñ Seex Ibra gëmee sëñ Tuubaa rek gëmee na ko ne soxna Fatija gëmee na ko noonu tarbi ko it tarbiya goo xam ne du ndaw fu ak tarbiya di jaar rek xam naa danañ ci ñëw damay bàyyi sëñ Balla eh, sëñ Abibu Caam mu tegal ñu tuuti xasida walla wala falu soxna may Maymuna bu amee ñu taaxeerlu sëriñ la ngir man koo dalal gis naa na ci wayu soxna May mi ngi wax boppam mi ngi yàdd boppam naan soxna May way sëriñ Tuubaa war na la ndeem am nga ci ngor dara dara xasida googu xasida gu neex lañu daaj ko daaj bu neex soxna may moo ko way sëñ tubaa waaye bi mu koy way boppam la njëkk di yàdd mu naan ba maymunatun bintul xadim xanaa foofu la xasida ga tàmbalee yaakaar naa ne sëriñ abibu dana ci mën a ñëw su ko defee rek ñu dalal sëñ Balla continuer nag ci waxtaan wi kon sëñ Abibu Euh, ñu daal di déglu xasida ñëwaat ak yéen ci biir jataay bi alhamdulillahi alkarim musliman على استقال بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخن لوطن بنفى مع القين وخادني إليه بالتعليم من بعد ما سبب التخير وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا هل الذي خزي عن تبعا هل الذي من بمراد اقتدى lil miisatul xadiimi may sakiyu maay jéema way di la sant ngir yàlla maa ngi ñaan taxaw ne sàtt bun am na xaraanu te nan am bànneex jébbalu waa nag nag mu nandal ndox mu neex musiba yeeg balaa nan ci mucc noob sunu njaboot gi nu gën di moccu moo tax ba maa ngi dellu sant yàlla moom mi ma sopp loo ko xam te yàlla gëm yàlla ak bët rasuulu lu ma masa am moom la ñoom laa wóolu xam naa ni bëgg rasuulu moo mën a may nit bal bu gum wóolu mooy sama xol saa xol moom lay gis aw ma keneen mbàkke te yàlla na ma gis Seyxul Xadim jébbalu waan naa nangul ma maag njaboot ji ñépp noo moo tax rafet njort ci yoon yi ngir ku la soppi kom nga doon gan déggaale bii si am nga kiiyu moo ma ko dénkoon daana sol ma kiiyu cheikh mustapha na xamal ak taalibe moo di mbiram yoon wi defal ak taalibe amal ngor ak jom fonk jaamu yàlla seexlul bi daaroy sunna mooy la yel ma dal jaay sama njuréel man jëndee ko ak be Cheikh Bamba gën defal jannatan ilal jannaati ziyaari këri Mbàkke bu ñeetaate may nu fan bu gudd barke fegal nu am ndam alhamdulillahi ma sant yàlla saamol jofel la feese maa sama cofeel ci yow xajul ci nopp seereel aw ma kenn kenn ku dul yow yaay sama lépp sama xol baa ngi ci xam naa ni lu ma am ci yow bi ndeem am nga ci bor dara dara maymuunatul bintul xadiim war na la foo toll lu neex sëriñ bu mag am nga ci ngor dara dara maymuunatul bintul xadiim war na la foo toll lu neex sëriñ bu mag am nga ci dara dara war la sant yàlla lool war la tuubal ko toxoon li mu la may te ni doon ku ca ne def dara defal te rikk bul tawat yaa ngi warut jógal te sadd ay bayit te yëg ni dara alhamdulillahi borom xares ki xam ni moonu moom xam na ni sant naa moom ki xam ni yéenewul dara te xol bi yéenewul lu bon benn julit ba gul bon te yàlla xam na doy na kon naa ko dagaan fi la dara te xol bi yéenewul lu bon jërëjëf sëriñ Abibu Caam yaakaar naa ne bokk yi bu ñu déggee xasida gi ni ko soxna si may Maymunatul bintul Xadim dégg nga ko war na la foo tollu di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci ngor dara dara soo ko dugg nag ci sant yàlla boromam subhaanahu wa taala nga xam ne ñoom seeni wax li nga ciy déggee mooy waxtu wu ne danañ nangu na seen jaamub yàlla lañ boo xam ne yàlla rekk leen moom keneen moomu la yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seen royukaay waaye sëriñ Tuubaa nag mooy seen wasila ñetti baat yi doom ju góor ji ak ju jigéen ji du ko jaawale. boo dee siwaatee ci waxi soxna May da ngay dégg ne kenn ku nekk cër bi nga am ni mu la ko joxe nim joxe yàlla àqam delloo ko ab cëram bañ ko bañ ko bunduxataal ci dara wane yonent bi cër bi ko yàlla jox ba noppi nag ñëwaat nag leeral naññ ne nag wasilaam ak wéeruwaay mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul tey doomi Serigne Touba boo desiwaatee ci. peese way wi yow mi nga xam ne eh, dangaa jàng eh, way boo desuwaatee ci màndaxe way wi niñ koy peesee da ngay gis balance bi nga xam ne ci la soxna may teg ay wayam amul benn balance bu wat morom ja daa équilibré daa daa daa balancé way day balancé mu mu nga dégg ci kon xam-xamam ak mën a wayam waxuma la bari xam-xam ak li mu way ci li mu way ci tawxiid nit ki diggante nit ki ak yàlla li mu way ci téere yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne maanaam bañ na ko ba sax moom soxna May maanaam jàngale lu ci bari daf ko defoon ci ay bayt njàpp njàpp mii daf ko bind ay way même jigéen ñi daan dem ci waañ wi di togg sax da leen defaloon ay way yoo xamante ne bii moom la ñuy wayantoo ndax ndax li muy bañ mooy sa dara lu neen soxna may bëggut ku neenal wenn waxtu bëggut ku neenal senn saa moo tax xam na ne jigéen dafa fonk wayantu mu bañ ñuy wayantu lu leen amul njariñ mu leen di defal ay taarif yu neex a wayantoo ba noppi nag di leen jàngal seen diine kooku ab yarakat la de ab sëriñub yarakat la sëriñub tarbiya la bu mën a yar yar nag mbooloo mu bari ginnaaw bu mu yaroo ci soxna Faty Dia liggéeyal sëñ Tuubaa it liggéey bu rëy loolu àdduna nettali na ko nettaliwaat ko mooy naar yooyu nga xam ne ñoo bindoon kaamilub alxuraan seen doom ju jigéen ju bind kaamilub alxuraan ñu wan ko sëñ Tuubaa ca gànnaar di wan sëñ Tuubaa ne ko am nañ doom ju jigéen ju bindub kaamil te booba sëñ bi jabootagut soxna Fat Dia fi nekk ak soxna Astu Mbàkke Mbàkke Kajoor ak ñooñu bareeguñ sëñ Tuubaa ñaan yàlla loolu ci ko ci ab xolam ñaan googu mu yaan yàlla ak bi ñuy wan sëñ Tuubaa na ko am nañ doom ju jigéen ju bindub kaamil nangam ak nangam ñaan googu yàllaan ko nangoo ci bi soxna Aminta Lo di waxaale li sëñ Tuubaa di jaay mu nga nangoo ko ci soxna moomi Maymuna soxna Maymuna gane àdduna jàng alxuraan mokkal ko bind ab kaamil andil ko sëñ Tuubaa njaareem gan ña bind seen doom bindoon kaamil ba ñëwaat njaareem fekk fa sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa def ko lam defoon yaayam daa fab dugub jox ko ne ko demal sa kër soxna Fatija toggal ma fa ab reer andil ma ko mu dem toggal ko fa cerey lay ju mucc ayib andil ko boole ko kaamil bi sëriñ tubaa jox naar ya cerey lay ja ñu reer ca ba fàtte na gànnaar lañ bàyyi ko woon sëriñ Tuubaa jox leen kaamil bi ñu yéem mbindum kaamil bi waaye tëlatuñ kaamil bi ndax areer bi ñu ne sëriñ bi kaamil bi wow na rafet na waaye cere ji neex na sëriñ bi ne nag ki togg cere ji moo bind kaamil bii allahu akbar na may yi mu dajale dafa bari ci ay ngërëmi sëñ tubaa maanaam doonut kuy déggandeem sëñ tubaa da koo tërbiyewu sëñ tubaa da koo jàngal yar ko tërbiye ko ma takkoog moom takkoog soxna Fatija soxna Fatija lu mu soxla ci sëñ Touba moom la ci yónni sëñ Touba di ko tontu mu ñëw ci soxna Fatija jaxasoog sëñ Touba lool mbooleem doomi sëriñ Touba yépp jox ko ab cër du laaj kenn masala du gàggante ko ci fenn dégg arul xam mantiq xam bayaan dégg naxwu mokkal alquran rafet mbind mën a way suñ borom waajal ko muy koo xam ne boo ko gisee xam ne kii suñ borom waajal na ko ci fànn yëpp foo ko fekk sërub dënk wala sërub rabal ma nga mu muuroo jekk lool doo gis ci moom lu dul xar kanamam ba di ab yarekat nangoo liggéey nag soxna Maymuna musta bàyyi benn taalibeem bu muy yar wala doomam ngay dem ca waañ wa mu toog ci biir kër ga déedéet jukkib alxuraanam bi mi ngi ak moom waaye ci buntu waañ walay toog ak moom booy xolli du noona moo lijjanti la booy raxas satut moo koy lijjanti lay dem ca cin la moo koy xam bu ëppee mu wàññi bu matut mu mottali suñ noppee mooy yàq mooy tibbaate ndab lu ne mën a dem bërëb sàngam amut lenn lu mu daan def lu mboolem ñi mu yar li ñuy def ci kanamam lañ koy defe te lum ci tële mooy jóg defal ko boppam wan leen ko ku yàlla dimbalee ngi noonu muy soxna may Maymuna ci tegtale rek ci tegtale rek ni ko sëñ Tuubaa def ak tërbiya gi ko soxna Faat Ja tërbiya mooy soxna Maymuna ñëpp leeral nañ ne benn photo bii la am ci àdduna benn photo bu rafet bii nga xam ne bari na ñuy génne portrait soxna jaara soxna Maymuna la lañuy génne bari na ñoo xam ne ndax portrait soxna jaara amut wala boog gisaguma ko waaye bi ñuy génne soxna Maymuna lu ci ëpp soxna Maymuna la ñuy génne xanaa bu dul tukkuloor tukkuloor su rafet soosu ñu génn mu takkub jaaro waaye bu dut moom rek foto soxna may la ñu ëpp di génne naan soxna jaara fotom bii bi mu koy fotowu ki ko ko foto bi mu bëggee foto bi fekk ko Kawlax ndax boobu sëñ Mudu Maamun day bari lu muy nekk Kawlax bi mu ko soxlaa fekk ko Kawlax soxna may da ko ne ngir nga man maa foto da ngay dem da dellu Tuubaa soo demee tuubaa nga laajte kër soxna Fat ja ba gis ko ne ko may moona laa bëgg ab foto ci moom su la ko mayee nga ñëw bu la ko mayut nga teggi jëmmi may moona soxna Fat Dia la ko sëñ Touba dénkoon du ma def ci sama jëmm lu soxna may soxna Fat Dia yëgut allahu akbar bari na woote ak murite akuk taalibe ba tey waaye ku ci seen soxna may moona nekku ci ndax nit ki la jàpp na ne bu génnee ci kanam sëriñam lu ko neex def waaye yow nekkoo ci sa kanam sëriñ ba nappi magum jëmm nga am responsabilité xam ko nekk ci sa biir kër am ku la bëgg a foto képp nga wan ko ne ko foto bii da ngay dem tàggu ji ki yilif jëmm ji ndax jëmm ji dañ ko dénkaane loolu loolu loolu loolu moom wax ko gën a yomb nga gis ku ko def loolu ci la soxna may nekk bind ay kaamil yu bari bind ay kaamil bindut benn kaamil bindut ñaari kaamil sun borom dogal ko mu jaar kër sëñ Mor Soxna am fa ku baax di sëriñ Seex May maa ngi siyaare bu baax a baax njabootam gépp di ko teg ci loxol sëñ Mor May ak mbooleem ñi mbokkal jaar na it daarul moxti kër sëriñ Mahamadul Habib am fa sëriñ Moustapha May kon dangay gis ne dem na kër sëñ Mor Jaara tibb fa mi taw mi taw sëñ Mbàkke Mor Anta Sali dem kër maam no mi loxol ndijoorul sëñ Touba tibb fa ñëw Daaru Salaam ci kër maam Cheikh Anta mi yor saxaadata daaree nii tibb fa kon kay soxna May waajuram bari le na lool de waaye soxna May de bari na amut lu ndaw de cër bu rëy la am. ba mat sëkk te fii ma la wax fu mu ci dem fu ne liggéeyal na fa yàlla liggéey boo xam ne lay tegtale na yàlla nangu na ab liggéeyam mooy lam fa am mooy lam fa am soxna may amul ci benn buntu kër ci buntu kër yi sëñ yi doom ju nuy laajte kum fa am kuñ xam nga te luñ lay xame ci yàlla yàlla rekk lañ la xame demal ci sëñ Moustapha may daarul moxti ku ko masaa gis sam xel du dem ci kudut suñu borom subhaanahu wa taala ku ko masaa gis sam xel du dem ci kudut Serigne Touba nga jóge fa ñëw ci sëñ Cheikh May soo ko gisee am na ku ñuy wax El Hadj Modou Mamoun Mbow dafa am benn bis ma wan ko foto sëñ Cheikh May bu mu ànd ak sëñ Abdou Khadir mu ne ma li sëñ Abdou Khadir di santaane de kii doo nga ko man ma ne ko moo tax yàlla boole leen sëñ Cheikh May sëriñ Mor May moom lañ fettale woon nag man moo ma nettali ci làmmiñam sëñ Mor ne ma xuru mbàkke xuru mbàkke sëñ Ablaat moo wax ne gaar buñ muur la ku amut muur dafa teg ab tànkam ne ma dafa am benn bis sëñ Abdou Lahad ñëw ci sëriñ Sohaybu sëriñ bu di waxtaan ak moom ci xuru Mbàkke di wan nettali nag loo xam ne sëñ Bay Jaxate ko waxoon ci bi sëriñ Touba bëggee dellusiwaat xuru Mbàkke tubaab bi di ko gàllankoor ak la sëñ tubaa wax ca xuru Mbàkke ba agsi ci ne sëñ Touba daa wax ne xuru Mbàkke gaar buñ muur la ku amul muur dafa teg ab tànkam sëñ moor nee na baat boobu bi mu daanoo sëñ Ablaat daa génn taal ab oto mu wuti xuru Mbàkke sëriñ son boobu daa toog ba mu yàgg mu ne ma ana sëñ Abdou ki ñu doon waxal ñu ne ko moom kat daa mel ne la ko wax moo ko taxa a dem wuti xuru mbàkke nee na sëñ son bu taal oto mu wuti xuru mbàkke sëñ Mor moomu moo nekkoon ambassadeur soxna May ak sëriñ son bu nga ñëw Daaru Salaam fekk sëñ Amdi Moustapha fekk fa sëriñ Abo xam soxna toora ko xam soxna toora mi sëñ Mbàkke Madina yoroon xam xam soxna yàkkale mi sëñ Abdul Akram yoroon jaxasoo ak ñooñu da ngeen xam ne fam demoon de jël na fa cër bu rëy waaye bi mu ñëwee Daaru Salaam de sooyut Daaru Salaam am na fa cër de tibb na fa lu baree baree baree soxnaa su waajuru sëriñ Amidun mii nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon nekk Daaru Salaam bi mu génnee àdduna soxna may xalimaam la jël xalimaam seereel ko ay seere ak ay woy yoo xam ne boo jàngee woy ya ci ngay xame ne soxna may moo ñàkk kañaan soxna may xol ba moo rëy soxna may xel ma moo rafet jikko ja moo tedd. Assalaamy FM 99.0 Touba. moo tax Daaru Salaam koo xam rek da ko tàmbalee sëñ Mourou Roqe sëñ Amidun sëñ Bakkas ñëpp a am ay may ñëpp a ko am ndax lan nam leen defoon man sëñ Modou nettali na ma ci làmmiñam na ma màggalu tubaa dafa jege may defar kër sëñ Modou Mamoun gi ci Touba soxna may fekk ma fa. ne ma ba seng yi ngay defaree kër gi dana des ma ne ko ah bu desut ñu wuti ay seng de loo bëgg mu ne ko sama kër gee daal laa bëgg boo noppee nga ñëw defaraatal ma ko bala ñu àgg ci màggal ga nee na ba ma demee booba ay baraag a xew yu am ay werandaay baraag bi ñetti néeg la waaye nee na mboolem seng yoo ci nekkoon dama koo dindi def ko seng yu bees wutal ko mbaar mu jekk ci kanamam dajal ko li mu bëgg lépp bi ma noppee. mu ne ma kaay jii nag ma defal la loo xam ne tey jii sa baay bu ko amoon ni du la ko mën a defal ndax say doomi baay yaa di ko wax ne ko sëñ Tuubaa moom Moodu na nga xam ne ñëwuma ci kenn nii la ko nee na daa ñëpp loxo ba <clears throat> bi muy wax ak ko tàllal waaye bi muy wax ak moom ko ne sëñ na nga xam ne nag ku baax ki ñëwuma ci kenn nee na daal di ñëpp juróomi baaraamam yooyee kon kooku ku ab cër la. kon buñ koy fàttaliku juróom-ñetti fan ci aw kor yi mooy bésub kore bi bu delsee ci ndigalul sëriñ Abo Mohamed waaye di doon jataay bu am solo boo xam ne turandoo yi turandoo soxna may yi fu ne fu ne la ñuy jóge kër yëpp nag kër yoonu murit yëpp kër doomi sëñ Tuubaa yëpp ami Maymuna te ñoom ñëppay ñëw maa ngi ziar baax soxna may laat soxna mayum sëñ Abdullahi génn na àdduna yàlla na ko yàlla doole ay laar soxna may njoogu may yépp rek soxna may ñang soxna may yaata ñooñu diggante soxna May ak doomi sëñ Tuubaa yi soo ci duggoon dangay yaakaar ne liggéeyam bépp da ko jeexal ci njabootu sañ Tuubaa boo diggee duggee ci diggante soxna May ak boroomam ak alxuraan da naan soxna May amutoon jot soo duggee ci diggante soxna May ak liggéey liggéeyub jigéen da naan soxna May ndax daana jàng soo duggee ci soxna May ak lim taalif ak lim way danga naan ndax soxna May mi amoon na jotub liggéey moo lay xamal ne kon waxtoom musta neen benn bëccëgam mosu koo wàcc mbokk yi sëriñ mambala bi lañ waroon a àndal jotaay bi waaye xam naa dafa am ngànt xam naa li ñu dese ci waxtu bëriwut waaye dañuy yaatal jotaay bi rek ci 88 ci 33 943 88 28 33 943 vingt 48 28 33 943 vingt 28 loolu mooy jataay bi bu dee ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew dañuy def double zéro deux cent vingt et un quarante 943 vingt 28 seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi Sëriñ Abibou caam moo nekk ci wàllu xarala gi bu dee ñi nga xam ne ñoo ngi suivre bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal baax ñu ngi jot message yi. 943 48 28 ginnaaw bu ñu defee indicatif bi double 0 221 bu dee ñu ne ci biir réew mi dañuy def 33 943 48 28 seen mbokk taalibe Fallou Galass moo nekk ci micro bi Serigne bu Thiam moo nekk ci wàllu euh, xarala gi ñu àndaat dégluwaat wala falu soxna Maymuna <coughs> <coughs> euh, maymunatun bintul xadim war na la foo dollu di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci ngor dara dara maymunatul bintul xadim war na la foo dollu di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci ngor dara dara maymunatul bintul xadim war la foo toll di jéem lu neex bu mag bi ndeem am dara dara war la sant yàlla lool war la tuubal ko tofoon salaamaaleykum salaam wa rahmatulah. Mbacke. sëñ Fallou. ñu ngi siyaare baax. lay delloo siyaar baax a baax a baax. ñu teewlu waxtaan bi. ndeysaan. waaye soxna May soxna soxna mu mag soxna May Kubra. mu mag mi bokk ak sëñ Abdou Khadir Ndeye ndeysaan. lool. ndeysaan. waaw ñu jërëjëf jërëjëf. ziare jërëjëf jërëjëf sëñ Fall. allahumma amiin jërëjëf jërëjëf amin amiin amiin amiin amiin barke borom jërëjëf euh, sëñ Fallou ñu sant ko gërëm ko ñaan sun borom mu doole ko tawfeex di saara bokk yi nag kër ñaan yëpp 33 943 48 28 33 943 48 28 seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi Serigne Abibou Thiam moo nekk ci wàllu machine bi bu dee bokk yi nekk bitim réew dañuy def double zero deux cent vingt et un 33 943 48 28 loolu mooy yoon wi ngeen mën a àddu ci jotaay bi fii ci seen rajo Assalaamy FM lëkkaloo ak site bu mag bi di Assalaamy TV seen émission waajal màggalu soxna May tey jii ci mbokk ngi ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax kooku. Gora Diop la Jannatul def. siyaar bu baax de. ñu ngi delloo siyaar bu wér de. di dëkk waxtaanee lool. tabarkàlla Diop. am na solo lool. soxna May mi soxna May Kabir ngeen di waxtaanee. soxna May Kubra waaw. waaw Kubra waaw. Mhm. kooku de moom ñoo bokk waa Diop. dëgg la waaw waaw. waaw xam naa nag ñu bari nag day nañ a miin la waaw mais day mag. mais day mag. mais day mag waaw ñi ko ñi nga ñi nga xam ne nag bëriwul. dëgg la dëgg la dëgg la. ndax duñ déggee ni soxna May la day def ni soxna May. dëgg la ndeysaan. soxna May ba loolu la ñuy dox def ma doon gën a miin. Mhm. moom sax yaa naa koo xam sax. moom 1925 la feeñ jamono. mi 1900 ah, mi 1907 la feeñ jamono. moom ci yéen la gënee jamono wala. waaw moom ci yéen la gënee jamono. 1925. 1907. 1907 waaw ba sëñ Tuubaa nekk ci. waaw ah, wax nga dëgg. moom kañ la génn jamono. soxna May 1958. Ah, tax ñu bari ñu hmm, dëgg la. <laughs> Ah, ñu bari ñu soxna May nii a dëgg la dëgg la dëgg la. waaw dégg naa ko dëppee moom mu saak waaw dégg naa ko. man naa ne moom waaw kon taalif kon yu bari soxna May moom moo ko way am na ci yu bari yoo xam ne yu arab yeeg yu kii soxna May mee ko way. Ah, waaw xam ko boobu may teg maye am naa boobu la boobu soxna maye ko. wéy na weer yi. weeru gàmm waaw yow kay xam nga way ya. way lépp la way. moom daanaka. day simit day borom mu delloo waaw. na si àll bi jàng na ko. mu ngoog yow day bari nga xam-xam. yow xam nga ki ñuy waxtaane yow. waaw ah, soxna May moom kay xam naa bu baax a baax. ndeysaan jërëjëf waay. waaw ah, xam naa leeral ne di leeral laa tam day ci kii mm-hmm, la waaw ah, na xaw ma dañ dëgg la dëgg la la soxna May ne ko miin bëriwul. dëgg la a yàgg dëgg la jërëjëf. ñu ngi rafetlu waxtaan bi baax a baax. tubarkàlla jërëjëf. dinañ ko dégg incha allah ak Abath dëgg la dañ ko dégg jërëjëf. asalaamaaleykum dese naa leer tuuti nag ci ci at. ci wetu uh, jannatu. Eh, waaw waaw maanaam fu nga jàpp dégg nañ loolu baax na. waaw ah, fi mu toll boo nekkee mat sax dëgg la incha allah dañ ko toppatoo kon. Ah, mën nañu defar ay jéego daal dina am solo. léegi tey nga di ko dégg na ko bëggee. baax na jërëjëf. jërëjëf sëñ boobu Diop di wootee jannatu ñu ngi koy sant di ko gërëm 33 943 48 28 euh, 33 943 48 28 seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi euh, sëriñ Abibou Thiam moo nekk ci wàllu machine bi jaajëfal baax a baax mbokk moomu koy topp soxna may la moom ma xam ne way na weer way jant bi way bisi yi euh, way weeru koor soxna may tubarkàlla waaw waaw góor ñu ngi lay sant bu baax 33 943 48 28 ba tey ñu dégluwaat wala falu soxna may mun ànd ko ak euh, sëriñ Abibou Thiam mi nga xam ne moo nekk ci wàllu machine bi jaajëfal mbokk mi nga xam ne mi ngi envoyé message ca Espagne ñu ngi koy jaajëfal sëriñ Bada ñu ngi koy am ñu ngi koy sant di ko gërëm di ziare mbokk yi nekk Espagne yëpp euh, di leen ñaanal tawfeex di yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Mali ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi topp euh, seen bi di Assalaamy TV ñu ngi leen di ziare di leen ñaanal tawfeex 33 943 48 28 33 943 48 28 seen mbokk taalibu Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi Serigne Abibou Thiam moo nekk ci wàllu machine bi. am nga ci góor dara dara. war na la sant yàlla doon. war na la tuubal ko doxoon. li mu la may te xam ni doon. ku ca ne war di def dara. mbokk moom gënaat na sëñ Abibou. mu jéemaat 33 943 48 28 33 943 48 28 ñu jaare soxna May Mbakke mu sëriñ Amdi ñu ngi koy jaar baax soxna May Mbakke mu soxna yàkkale moom itam maa ngi koy jaar soxna May Daaru Mbakke mu sëriñ Modou Roqee a ngi koy jaar jaare soxna May yëpp soxna May mu sëriñ Amidoun moom itam maa ngi koy jaar di ko ñaanal tawfeex 33 943 48 28 euh, 33 943 48 28 seen mbokk taaliba Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi sëriñ Abibou Thiam moo nekk ci wàllu machine bi ñu taaxirluwaat bokk yi dégluwaale wala falu soxna Maymuna Bamba noo ngi dee di ñaan mucc ci ñépp la bur yàlla noo ngi lay dagaan yonent ba noo ngi lay wayaan Seex Bamba noo ngi dee ci ñaan ak bañ a tabbi sawara mbokk salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ku baax kooku sii di ndongo daara sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Aliou sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar sëñ Aliou na nga def sant rek. yàlla na sant yàgg lool. ah waxtaan wi daa am solo lool kat moom moom mooy di ci barkeelu rek. ndeysaan sëy. man soxna may moom ah, ah, dëgg la de ndeysaan. <laughs> lu ci def laa xam. ah ndeysaan dëgg la. <laughs> Ah. moom laa xam. waaw waaw dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan. waaye noo ngi siyaar rek. dëgg la. alhamdulilah ñaan sa borom yokk fan wér gi xam-xam. amiin sant ko sëñ Aliou Seyna. mu sëriñ Sidi Muxtaar 33 943 48 28 33 943 48 28 seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll moo nekk ci micro bi sëriñ Abibou Thiam moo nekk ci wàllu machine bi mi ngi may wan na ma xam naa ne li ñu céréale woon ci waxtu dafay mel ne mi ngi waaj a tàggatoo wala boog accident sax kon xam naa rek sëñ Abibou ñu sant leen gërëm leen eh, ñaanalaat sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom dañ ko fa yàggal gën a dolli ak wéram waaye ñaanal sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun ak di xalifatu soxna Maymuna yal na ko yàlla may fan wu gudd waanu ko wër ñaan bis bi yal nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm te lépp loo xam ne waaye mën na ko ci alquran xasida salaatu ala nabi bernde ndax ku ko mënoon la te bëggoon ko eh, nga def ko def ko addiyee soxna Maymuna bintu Cheikhul Xadim di soññ bokk yëpp ci bis ba di ñaan képp ku teew. Mm, aynu rahmati di mubaaraku yal na yàlla barkeelal la sa dund àdduna barkeelal la sa dund alaaxira ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala àq ñépp di bala àq ñëpp seen mbokk taalibe la Fallou Galass Syll di leen joxaat rendez-vous ci beneen daje wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci dara dara. maymuunatul bintul xadim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag bi neem am nga ci ngor dara dara maymuunatul bintul xadim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag bi neem am nga ci ngor dara dara war na la sant yàlla lool war na la tuubal ko toxoon li mu la may te xam ni doon ku ca ne war di def dara defal te rikk bul tawat yaa ngi ne mett te warut jógal te sadd ay bayit te yëg ni nekkoo ci dara alhamdulillahi borom xares ki xam ni moonu moom xam na ni sant naa ko moom ki xam ni réerewul dara léxol bi yéenewul lu bon benn jullit ba gul lu bon te yàlla xam ne doy na ko